sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi sëriñ bi dëli na nee koo gis mu mën ci bisam bii bis bañuy ñuy jaaxle dañ koy ñee te xem gaa ngi nee ñaari nit bu ñu dendee kii di fonk bisam bii dana raw kee ko fonk sëñ mbaarik mbaarik mbaarik ñëwal eh ah. mana de ndaka xarnu bi sant yaa ngi ci jàmm. sant bi wér bàyyi na ci jàmm baax. bàlloon koo ci buntu bi dama bëggoon naa la ko càkk càkk la waaye xam nga jamono ji. naka xarnu bi. sama xarit boobu ma la fi doon wax. waaw laa bëgg dem këram seeti ko tudd. waaw waaw nga gunge ma fa nag. ah waaw waaw ana ana dégg. soriwul ah, dafa ndànk. kon soxna si néeg bi dama laa bëgg a jox. xéwal gii bu ko defee moo kii ko rek mu toggal ñu lu mel ni laax wala yu demee noonu ñu xéwlu ci. Ah. ana xaaral ma jox ko kon. déet déet kon nag may baal ma jox ko rek comme ça ah. ma jox ko. waaw jox ko ma toggal ñu. ana dégg ngeen. Mbacke Ball. dégg ngeen oo. Oh. Mbacke. ñëwal nii. daan wax. nit ku ñëw lu mu la ëppalee du jonkan wu rëy wax. amoon nag amoon nag dégg wax nga dégg yow ku civilisé nga. kii. Mhm. toggal ñu ci laanam laaxu bisab. wala mbaxalum mbaxalum kii mbaxalum mbaxalum saalum baax na. waaw mbaxalu taatu taatu xar sax wala mbaxalu côtelette côtelette weti xar. ma toggal leen laaxu ngurbaan Lourban laaxu Lourban kii kii magum taax la moo xam ne maanaam ku dadam ku xam na lépp naa Lourban ci maa ngi nag sa nijaay nugum mi te ñëw fii baax na ko ñu def noonu waaw jërëjëf ay sang beeg nijaay nugum mi fàttaliku nañ démb yal na lay yàlla la fal cat cey àdduna ah nag gonga mag ñi moom lañu daan tëdd gonga gu baax la. waaye daa baaxul gonga ak sexaw amatu laal ko amul dara da sànni ma ci noonu rek. dara néew mënoo gan gonga dama wax de. gonga gee gonga normal la. gonga gee moom. ak tubaab. tubaab yi kii ku mu doon bundu kaay kaay. dama lay wax kaay ma sama sama ngóor nga bundu kaay ma yow xam nga ni danaa toog la bon. kii mooy kan kii mooy kan. kii mooy bu ndox waaw kañu doon wax sëñ bi mbaaxi sëñ bi. bu dama ko sagal dama ko sagal bu ko sagal da nga koy lor. yow yow eh, dama lay sagal ca dëkk ba laa toll di xam say jaloore yow. ca dëkk ba laa toll di xam say jaloore baax wi waay. yow ah, dégg naa mag da nga da nga da nga sàllar ñi mag. ma naan tuba ah, a fen. tobal kenn yëg nag. bu kenn yëg. daa bu ndox da nga koy fàttali si yow si ngub seetaane ngeen doon yow yow yow yow yow xam laa yow baa bi fii dina ngi mel ni bañ a yendu ni yow yow yow yow eh bu ndox da yow ko koon nga kenn xamul naar nga kenn xamul ay yow tubaab nga ngeen ngi mel ni bañ yow lay waxal ah. yow yow eh eh bu ndox la mooy bu ma la fekkee kër ga danaa xawi sa sutura yow yëg eh no maa ngi ngank sa lu bon kat ndëj xale bi wala mi ko nekk bala mi loo jëf ñu daal koy ful lu doon laa ngi yëpp moom lu muy def ci jàmm moom kenn du ko digal. dëgg la moo ñu fi indi moo ñuy jëlaat. Mhm. waaw Thierno nga xam ne yàlla daa am lu dogal ci moom. dëgg la mbaa daa mujj ami magasin. <laughs> daa mujj yàlla ak laa mën parce que amuti magasin. Ah, waaw léegi yàlla ko yokk mën na ko de ah, mën na ko de lépp mën naa ne waaye euh, xam nga suñu borom. Mhm. Euh, kullu nafsin ma maanaam maanaam. dafa dafa nelaw. tubtu ila llahi wala rasul. inna illahi wa inna ilayhi raji'un. la ilaha illa allah sa waay daaw ah. xaaloo tilka isan karatun xasiratun. inna illahi wa inna ilayhi raji'un. xumus ya bani isa ila uskuruni mati allati an'amta alaykum. laa uqsimu bi hadhal baladi wa anta bi hadhal baladi. waaw loolu daal moo fi am. waaw su may rummi. Thierno nu mu defee nelaw saay rummi commune wax. Thierno daal fii la commando mbaxalum Saloum. waaw waaye dégg jaa bari. maanaam dégg dégg jaa bari xam naa daa fat. mbaxal mi da ko réer wala da ko añee. da ko réer tëdd waaw Thierno lu muy commandé ci mbaxalum sel du commandé mbaxalum Kébémer rek Thierno de juum na gerte gaa wal xol ba Thierno dafa juum Thierno ñeme naa gaan gerte gaa damaa yéene de ñeme naa gaan dëgg dëgg moo ëpp rek gerte gaa wal xol ba ba ba tax na wal xol ba tax na ba tax na Thierno gaañu sama juróom ñaar téeméeri yow xanaa nga far far lan maanaam li may bëgg laaj maanaam waaw kenn ku jël engagement yi fay bor Cerno yi bay bor yi dëgg di ko war koo fayee ko kii bor ñu naan la saytin mawtin rek saytin mawtin rek déedéet déedéet da sa da sa dal léegi yow loo doonal Cerno yow Cerno hmm. wax dëgg yàlla day li ma doon ak moom hmm. dëgg la aadama ak aw lañ bokkee waaye ak dëkkandoo gi yàgg rek waaye dëkkandoo wu yàgg day mujj maa wëlbati ko doon ay mbokk dëgg la ba wax nañ ko sax ne yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngal ne maanaam ay ay bu ñu yàggee daanaka faatu sax bu amee dëkkandoo mën naa doon dëgg la loolu ñu boole dëgg la waaye nga xam ne man Cerno day bor boobu ngeen ko doon topp si ngir sa gan yi nga dalal ngir màggal geeg yooyu muy xéewal googu naa la ko man naa naa ci defal yàlla mm-hmm. defal ci ngir màggal sëñ Tuubaa gi fay la ko dëgg la ah! ngir fayam mën a tëdd mën a mm-hmm. tàlli ñaret loo ma ko gën a fay ma a sant yàlla màggal gi moom amaana mm-hmm. sëñ Tuubaa comme moom moo ne bu ci kenn def ginaar ba xeeb ko bu ci kenn def gilem ba naw ko dëgg la xam naa yéen a juree jooju tey dañu ne yéen moo ëpp jëf mboolem mala yeeg ñi néew yeeg ñëppay dund bànneex bi dëgg la ndax bis bu amee bis bu ne dana am waa barsàq duñ ko yëg waaye bis suñ bamba bi bu amee bi muy sant mi ne sant leen ma yàlla dëgg la waa barsàq yëg ko allahu akbar waaw te li ko ko may. Uh-huh. benn naar bu ñu naan Abdou Latif nekk te gànnaar. dëgg la mooy naa naa dem laaji sëñ Tuubaa yoonu géej gi nu mu ci def. dëgg la sëñ Tuubaa dégg ko ci baatinam bu tedd boobee. Uh-huh. bind maanaam jasawul sakkoor. maanaam naar bi daa ñëw fii. Tuubaa di laaj sëñ Tuubaa. daa laaj si. da ko doon ñëw di ko laaj si baatin. Uh-huh. ah dëgg ñoo gisante nii ci say. déedéet ñëw ñëw si seen <laughs> moo bind jasawul ah, sakkoor déggoo ma de. ay man ak sëñ Tuubaa maa ngi. waaw nga ne man moom moo dégg naar bi ci batin na bir mu bind jasaawu sakkoor dëgg la bi mu ko bindee def ko mooy jawaabu Abdou Latif dëgg la ngir tontu naar bi te gisewul te gisewul kenn sëñ Tuubaa xam ne ni nga toogee bi sëñ Tuubaa toogee naar bi ñëw mu jox ko kii ne ko demal joxal ma naar naar bi ubbi xool dëgg la gis mu tàmbalee ca xadd xaala Moussa uh, xaadimul xadim allahu akbar laa ilaaha illallaah yàlla yàlla koy ay leeram may naa ko 3500 may naa ko mën na ci sëñ bi amiin may naa coono 3500 sëñ Tuubaa moo mel noonu mhm. ndax yoonam bi dajee sonn dëgg la ci dëkk ndax da ngeen di dégg loo xam ne suñ borom mhm. loolu laa dox jëm ci moom suñ borom bu amee dégg dana jaar dëgg la ndax moom tawaytu tarixal xaw mi gam wax ca miraad yi suñ borom gaa yi baax yi nga xam ne maanaam ay weer ak at la def maanaam dem ci yàlla mhm. man ma taxañal ma ko loolu Moussa Ka lan la wax ci Abdou Latif moom maanaam sëñ bi bi sëñ Touba defee defee loolu Latif sëñ Touba bi mu ko tontoo ci baatin daa mel ne sëñ Moussa Ka indi na ci way waaw loolu indi looloo indi moo pare avancé avancé lañ ko comme juróom-ñaar téeméer rek ci dugalee may na ko kooku may na ko jaale na ko hmm? ah, jaale trois mille cinq na waaw bu kii waaw ah, waaw hmm. hmm. moom moo jël way wi wolofal ko la ngir ñun wolof yi xam dëgg la loola wax xadd xaana Moussa googu moo tudd dëgg la xaadimul xadim ngir wax ak ñun ci sëñ Tuubaa Amadou Bamba dëgg la li man ci xaadimul xadim dëgg la baax na yaa saa akbar almanak sëñ Tuubaa mag yi maanaam maanaam lii bu ñu ko toppee ba mu a ñëw nii te ngeen fi ñëwee ak ak ak bor nu mu sëñ Tuubaa li mu wax may na ma dalub lislaam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu dëgg la dañoo ko jaamu jooju moom bi muy dem départ Mbacke Bari Jolof sëñ Tuubaa ba tàmbale woon Touba kon am ay wujug Touba dañuy sonn loolu moo tax mu dem ubbee ji Mbacke Bari départ fa dem jeewal dem Ndar ñoo xam na buñu nee kër kër këpp daanu Ndar ci lañ ko jàllale Ndakaaru loola waral bi mu paree ci liggéey boobu nag la ko suñu borom ndax da ngay noos <laughs> waaw loola waral mu dem gànnaar ñu jàpp ne gànnaar tubaab dañu ko fi sonal fekk ak fayam la fa doon jëli dëgg la foofee hmm. Cheikh Sidiya Ba bi ngay dégg dëgg la ndax moo jur waajuru Seydi Abdou Borom Dër bi man man damay dégg damay dégg ñu naan tuba Tuubaa tubaab bi yóbbu ko géej ci géej gi moom moo yóbbu tubaab bi ci géej gi déggoo li ma la wax xam la waral loolu hmm. sëñ Tuubaa di ko maanaam sëñ borom moo signé waaw loolu ci jaw sakkoor ba tey dëgg la jox yeneen ba mu signé dëgg la gars yi jiital Bamba waa lisaanu xaal barki sëñ Tuubaa déggoo de xanaa ay ay tubaab na xam daay kayitu kër ordonnance tubaab signé dara waaw te continué juróom-ñaar téeméeri daal mhm. bu ñu àggee dóor ci sëñ Tuubaa rek léegi mat moom léegi maanaam moom bor bi mat sëñ Tuubaa ci boobu moo mën a fay bor dëgg la bi ngeen fii ñëw bor kese leen indi woon déglu sëñ Tuubaa indiw leen ngir am ñi ngeen fayee bor def ko ay copie nekk defi ginaar waaye sëñ Tuubaa far na dikk leen fayal boppam léegi xam nga te dañuy faslante yow ak kóllëre mhm. ñun fii lañ dëkk moom moo fi man ma déw si fi ca moom dal fa sama aha bu màgg gi jàllat bu mu danaa fi yàgg day gane day gane bëgg Touba gi dama cee bëgg maanaam gane waaye dama leen bëgg xamal ne léegi maa bëgg ñu fasante kóllëre dafay ñëw dafa ñëw ni baaxee mbiri Sëñ mooy am lu ne dëgg la ba tale yi jafe ak lu ne di jafe mhm. Sëñ Touba far nañu indil nag mhm. mbakki yu fay koy màggal si Touba loo fi wut si ci Amadou Mbacke nga ñëw ngir boo màggalee mu fay si la waaw Amadou Mbacke màggal si mu fay la mu fay la far nag borom télé bi Touba TV tudd Mbacke yu sant nan fay wasalaamaaleykum wa rahmatulah déedéet eh, eh, taxawal es que xam nga ne Touba gii ñetti siin yi Sëñ Touba dong la ko lekk ba rek doo fay dara sonul naan ba mane doo fay dara sonul te ñibbi ñoo may repaas jekku a def juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer tegoo cin tegaluñ la cin te nga jékko da nga jéggale ku dul Sëñ Touba mënoo ko maa fekke loolu rek maa mu naan euh, bala nga xam ne maanaam Sëñ Bamba mën cim kan mm-hmm. bala nga koo xam nga sant kan dëkk kër Samba kan faatu ñeeb la cim kan nga te mosoo jaamu yàlla ba xam mooy kan. bu boobaa rek nga xam ne sëñ Bamba mooy. da ngay dem ca kan ma. Abdou Ndiaye yàlla gudd fan. yow yow fu sa nekk. man sama néeg ñu nii jàkkaaroo rek. jàppal ni donc jërëjëf. sëñ bi doo ko laal sëñ bi dañ lay def. non doo laal suuf ay waay ay waay dañ lay laal suuf ay waay boo limu laal suuf ay waay ay waay sëñ nga laal suuf sëñ Tuubaa nga laal suuf sëñ Tuubaa nga yëkkati lépp nga laal suuf. mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi yéem naa ko ngir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 ëllëg di lay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaa ki yëfam